c'est Waldo Ndiaye ak l'équipe de mu Tu ci l'éducation, ils n'ont pas à pâlir de leur réalisation Nous, mën nañ avec fierté taxaw l'éducation, éducation li ñu ci def commune Guinaw Rail Nord équipe et ce que je dis je l'assume et avec des témoins ce que je dis je l'assume et je le répète L'éducation, l'éducation, def ci éducation amul benn mairie commune ba tey soo dee xool lu jëm ci fourniture scolaire suñ premier année élèves yi nekk école Braga yëpp ay kit scolaire lañ leen jox ñëpp ay kit scolaire lañ ñu ñëw ci deuxième année bi toog waxtaan diagnostiqué résultat wu école Braga yi nga xam ne tey moom moo fa amoon bi ñu ko diagnostiqué aussi ñoom ñu wax ñun lan mooy seen seen jafe-jafe ñu exprimé seen besoin jox leen benn euh, photocopieuse grand format boo xam te mën na leen permettre ñoom seen essai seen activité yëpp ñu mën ko tirer à grande échelle ñu ut photocopieuse bu am performance bu mag aussi doté leen en quantité suffisante en rame de papier parce que aussi jàngum léegi aussi lépp ci papier lay lépp ci papier lay amee tey nga jël mu jëm ci wàllum craie tey liñ fa jëndoon mën nañ ci liñ fa yóbbu daaw mën nañ ko fonctionné waat ci atum ren bii nga dem tey ci casier tout petit bi casier tout petit bi ñëpp xam na ñoom seen besoin bi gën a mag ramble papier parce que xale yi dañuy dessiner coloriage ak yooyu noonu la ñuy la ñuy defal donc vraiment mairie bi def ci lu lu mucc ayib étudiants yi yàlla dogal na c'est la deuxième fois aussi ñu leen di jox souvent subvention te aussi bëgg nañ aussi relation bi diggante commune bi ak étudiants yi mu nekk relation bu gën a mais relation dootul warut a nekk relation am leen subvention mais une relation fructueuse boo xam ne dafay amal njëriñ gox bi tey la commune et les étudiants mën nañ bool def ay activités yu bëri yoo xam day njëriñ doomu commune bi et man ci loolu laa leen ci loolu lañ leen ni lañ leen invité parce que tey monde bi dépassé nañ foofu ma jox leen benn exemple tey muy yéen muy conseil communal de la jeunesse muy la commune dañoo am défi boo xam ne dañ ko war a xam nga défi bi mooy lan l'image de Guinaw Rails Nord est écornée l'image de Guinaw Rails Nord est écornée tey soo waxee Guinaw Rails Nord lañ la wax banditisme drogue image yi tax ma joxaale leen benn exemple tey soo jëlee sunu budget wu 2023 bi ñu génn est xam nga ne tey jii dafa am benn rubrique boo xam ne nii ki nga xam ni moo commune bi xam moo ëppale ay doomam yoo xam ne dañ leen tëj kaso dañ ko fay subventionné te ginnaaw raay noor moo ci ëppale ci Sénégal ginnaaw raay noor mooy ça veut dire ni kon ñun ñoo ëpp ay suñu doom ñu ñuy emprisonné loolu je l'ai dit en conseil municipal tegaatuñ ci dara gis ngeen crime bi yi am ni yëpp donc nous avons un défi à relever parce que notre image est écornée mais loolu nag tey jii nii ce sont vous les dirigeants c'est vous le conseil communal de la jeunesse en étroite collaboration avec la commune ak le CCDG ñu xool nan la ñuy relever ce défi là parce que ñun am nañ ay nit ñoo xam ne war nañ leen mën a bàkkoo ñàkk ñu ko fi mais li gën a bon ci ñun moom mooy génn donc nag loolu noonu aussi yooyu yëpp c'est des choses yoo xam ne war nañ ci toog ñu waxtaan ci xool suñu partenariat yëpp war na dugg ci partenariat bi xool yan défi lañ war a li ñu war a relever li ñu war a relever yooyu yëpp pour conseil communal de la jeunesse aussi euh, yàlla dogal na ay paaw ko jiite waaw <laughs> ah, ay paaw ko jiite président mi ngi nii Je suis le conseil communal voilà man régional ay da mais heureusement moom am na dafa jeunes conseil communal aussi aussi ci ci ci bi maire aussi euh, maison de la jeunesse bi euh, de pour un budget de 40 fekkoon gars yi passé marché bi gars yi euh, si seen euh, euh, fonds yi ñu defar plan bi ba pare ba plan bi ñu adapté ko ci ci budget bi mais maire bi mu ñëwee def na aussi mënoo jël maison de la jeunesse di ko def rez de aussi benn salle ak ñetti ñetti ñetti bureau ci la wax entrepreneur na ko ne désormais dañuy xool ñu jëlee ci kaw aussi ñu ñu yëkkati ko waa ji yëkkati na ko te aussi bientôt dina ko couler te objectif am mooy ñu def le tout ba d'ici le 31 décembre ñu réceptionné ko donc suñ ko réceptionné aussi pour jeunesse bi la quand on dit jeunesse y a les étudiants y a le conseil communal donc lépp la parce que ci kaw aussi dafa leen nañ fa def ngan di maamu salle de spectacle ngan di maamu salle maanaam li ci nekk suuf yëpp dañ koy dañ koy yëgal ci kaw mu nekk salle de spectacle bu ngande boo xam ne tey mën nañ fa def activité même ay séminaire war nañ ko fa war nañ ko fa mën a def donc plan bi aussi dinaa ko am ñu ma ko parta ñu ma ko partagé parce que dafa ne woon tey euh, l' entrepreneur que ça soit muy muy maison de la jeunesse bi que soit muy maternité bi nga xam ne aussi gars def nañ taxawaar nañ ba ñu ngi R plus 1 bi Kula dafa avant le 31 décembre dama bëgg a yooyu yëpp au moins pour ñu mën ko ñu rafet ko inaugurer. initiative bu mel nii euh, di la gërëm parce que li ëpp solo ñun suñu organisation mooy de seet nañ fii ab deux ans ngi nii yaa ngi subventionné rajo bi. Olaf euh, olaf day wax ci set parce que day am solo ñun suñu yi du reconnaissance bi reflété 10 milliards ci extérieur té mënuma 1 million 1000 francs ci qui ci commune faut symboliser défaite bu ngand à mon niveau parce que day symboliser reconnaissance bi au niveau local à mon côté Radio communautaire radio locale. donc monsieur le maire nous ngi lay gërëm bureau municipal de ci geste bi mel di jël au moins de saisir occasion bi ñuy assistance bi ñëpp ñu fi nekk ci mais surtout organisation yi yi nga xam ne dañ parce que j'ai beaucoup aimé cette façon parce que serait bien da nga dajale ñetti kuréel yu ensemble ngeen ne nañ leen defal doo subvention tey mënoon nañ ko daxase mu nekk ay subvention yu bari mais bu ñeneen ñi di wax peut-être du gën a mën a impact mais lii nga def nii tey mën na nekk cadre bu mën a créer benn type de collaboration entre ces différentes structures pour ensemble ñu am benn affaire bi nga wax sànq dafa génnee benn affaire ça m'a fait tiquer bi muy wax ne suñuy doom ñoo ëpp ci ñi ñuy gis ci biir prison yi ñu am population bu jeune yaakaar ci ñoom ñun fu ñu toll. man ñun bu ma waxee bu ñu ma waxee loolu daf may tiitloo parce que man xaw ma sax ay bandi gisuma ko ci biir gox bi xaw ma peut-être ni mu demee la xaw ma may je ne parviens pas à dans la localité da ngay dem fenn di bëgg a sa temps te ginnaaw raay ndax fi nga dëkk dafa am ay bandit te yàlla xam ne ne bu ñuy wax sénégalais professeur bi gën a éminent Daouda Ndiaye la ñuy wax te la dëkk et pourquoi ces loolu di ñu wax yeneen yi ñun ñu bëgg leen cee topp am na fii ay doomu gox bi ñoo xam ne man j'en connais quelqu'un dem na ba Bordeaux ne dafay bëgg nek maire ville Bordeaux j'en connais des centaines de personnes yo xamné ñun ñoo yarandoo ñun ñoo dem sen position au niveau dans ce pays ken xamul fu mu toll. te même style la ñor ni nii lañ mel. même esprit ni ñu leen yaree noonu la ñu formaté nonu mo leen def sen force donc ginaaw raay du quartier bo xamné nit war na fay mëna a au contraire ça forme un homme d'être un leader parce que dalay confronter ay situation yu bari nga am possibilité adapté wu ci maintenant dafa am ben jamono bo xamné peut-être il y a eu beaucoup d'initiatives ñun je me rappelle bi ñuy gën a nekk dañu mettoon en place ce qu'on appelle ay cadre de concertation ay regroupement ginaaw raay ku ko xamul dynamique organisation am lañ ko def mais dañu dem bañ ñu ben moment sini raq yi dañu retiré wu ci dynamique organisation doto gisati ben xalé ben jeune ci organisation organisation boy bo wo mu ne la la ci am ñun ñëpp ñu seetaan ko action citoyenne yi dafa manqué ak engagement communautaire bi waroon am ci gox bi waroon nekk force bi moo manqué loolu tey moo répercuté wu ci éducation jeunes parce que tey quoi qu'on dise que ñetti façon éducation am li Montesquieu di l' éducation de la rue de l'école elle et celle de nos parents souvent sax la première remporte sur les deux éducation de la rue nous ëpp li nga xam ne ne moom mooy gagné actuellement ci éducation bi suñu parents yi def wala bi école bi jéem def donc c'est important li Moussa wax que les gens réfléchissent ensemble il une stratégie que nous mën faire ensemble pour ñu delloosiwaat image de nous pour ñu image bi c'est écorné juste par presse interposée Hein? soit la thématique du Sénégal le Sénégal est nit ñi li valoriser le lu ñaaw Le loolu alors que la violence est mais si nous si ne prison cela veut dire que c'est un cas sérieux mënuñu ko mënuñu ko le problème la suñuy doom ñoo nekk en prison lan moo leen fa yóbbu yan mooy raison yi ñu commencé réfléchir ensemble ba lolo, bu ma euh, jeex bu ñu parce que c'est possible na parce que j'ai été là bi ñuy corrigé ADGR bi nit ñi demee dëkk bi yàqu gars yi créé ay rondement doo leen ko fekkee peut-être ay xale ngeen ñu dem ci quartier bu nekk mu am ay rondement ginnaaw raay nit mën fi dox journée entière guddi entière ñun fa lañ tàmmee dox ginnaaw n'importe quelle heure parce que dañuy jàpp ne fii nous agresser. agressé

il faut qu'on essaie de travailler sur la protection des enfants essayer de voir nan ci a encadrer les enfants parce que dañ ko soxla mënuñu continuer di di di violence bi di la di di famille di gox bi nous commencé marque parce que tey li ñuy def ni yëpp ils ont am master vous dem ngeen CV adresse bind yem ci un dof ay préjugés am lay dundee mu CV bi parce que tout simplement nous commencé à mettre loolu mën nañu image pour nous protéger ko il faut ñu reprendre le flambeau Moi, tax présence rajo bi day am solo pour nous gagner communiquer davantage faire sortir li nga xam moy lu baax lu ginaaw raay te daf ci bari tellement que en a tellement de risques yo xam ne buñ pas ko won sur des gens qui ont réussi dans des conditions beaucoup plus difficiles que yi ngeen dundou te qui sont au top maintenant dans cette donc ñun ñoo wara ensemble ñu jëm ci réfléchir on va essayer de voir au niveau du comité comment mettre en place tout un dispositif réfléchir sur les stratégie lañu def ensemble avec les jeunes ak qui ñu dem ñoo xam ñu mën ci participer monsieur le maire j'en profite pour vous dire que niveau comité ñu ngi préparé initiative un projet pour la pour jeunesse euh, climat bu ñu war a commencer dérouler et qui vont nous permettre maintenant de faire un peu des des activités citoyennes euh, jëmale ko ci climat dina am ay dina am ay ay ay ay place mais surtout li gën a am solo mooy de mettre en place un dispositif ay cadres yoo xam ne ay jeunes yi nekk ci benn cadre comme Gorée on a ciblé def fa aménager fa benn espace vert au niveau du euh, buntu rajo bi jëm centre commercial bi aménager fa espace vert et si possible au niveau de l'école Moussa ñu aménager fa espace vert boo xam ne dina mën a permettre espace mais toujours dans le cadre de euh, ay écobrique lay ay dispositifs écologiques, l'écologie, dañuy écologie accompagner une éducation parce que li gën si on fait tous ces gestes te nit ñi demuñu ci changement de comportement une bonne chance réussir donc c'est juste ça loolu laa bëggoon j'ai été trop long mais c'était une bonne occasion pour faire un plaidoyer que ensemble ñoo am benn affaire nous avons une ñun nous ko une ñu jëm merci je crois que l'expérience en parle hein. gis ngeen bu ngeen ñëwee ci waa ji mën ngeen a ak surtout les jeunes il faut toujours côtoyer des gens comme moi expérience bi bari na ay Pape Malick yii bu leen leen xeeb jaar nañ fu ne gis nga ginnaaw raay dafa bari ay leader Moussa mii di wax Liko ko yóbbu ba mu jiite gis nga ginnaaw raay yàgg nañ diriger structure yi ci kaw man mi, je suis membre du conseil régional de la jeunesse mooy bi njëkkoon périmé avant ñi conseil de la jeunesse moom chaque fois day périmé parce que y a trop de politique là a jeex par ci mandam donc yooyu dañ koy comprendre ngeen jàppaat gidewaat xale yi orienté waat leen gën leen jàppale les étudiants aussi nañ gën a booloo gën a jàppante xam ni ñoom dañoo am rôle bu am solo bu ñu war a jouer ci population yi donc mooy loolu ngeen xam ni ginnaaw yi ñuy wax ci biti amu fi ay nit ñu am valeur fi dëkk ñoo xam ni fu ñu génn buñ jiituwul kenn du len jiitu mouvement yi ñu bokk yëpp ñun ay leader lañ ci ñun wa ginaaw ray donc kenn du dem ñu des donc vraiment ñuy waxat loolu encore une fois di len sasaat monsieur le maire Moussa ku ci toog. donc ñu jox CCD. après CCD après. chers conseillers municipaux chers étudiants chers membres du conseil communautaire de la jeunesse et suñu doyen suñu grand noa il me serait très difficile de parler après lui. Parce que on l'a fréquenté, il nous a orienté. Si Moussa est là, à l'âge de 21 ans, on est devenu directeur d'école dans la fonction publique. Moussa a Louga, moi à KMR. Mansou Diaw, le greffier, a été mon adjoint à mon départ, était le directeur de l'école où je, dirigeais. Et tout ça, ce sont, quand je le dis, c'est parce que pour vous faire savoir que Guinara a toujours été à la hauteur de ses dimensions. Aujourd'hui, quand, quand je vois l'amicale des étudiants de Guinaoraï, quand je me disais amicale des étudiants de Guinaoraï, honneur l'Enessimam, dans la mesure où, dans mon temps, quand on était à l'université, je connaissais que deux étudiants à l'université qui étudiaient la colonie, le docteur Ismaël Diallo et Abdoulaye Sade, dont on passait chaque jour la journée euh, à, six chambres, une chambre, parce qu'on m'a demandé ici. Mais je vous dis, le Conseil de la jeunesse, c'est une entité de du ministère de la jeunesse, régie par le décret du président de la République. Depuis 2017, l'Indiel fonctionne. Depuis lors aussi, c'est seul le département de Pékin, au niveau national, qui réclame des élections de renouvellement. Tous les autres refusent catégoriquement de renouveler. Dieu merci, il y a mon patron Moussa qui là, qui est chargé tout ce qui est formation et éducation du Conseil régional de la jeunesse et région de Dakar. La vice-présidente Maria Ella, aujourd'hui elle est la présidente de la commission jeunesse, trésorier Ibrahim Fall et Dibi Diata. Pour vous faire savoir, même que même l'amicale des étudiants était membre du Conseil de la jeunesse. Peut-être n'y remplacer il devrait envoyer deux autres jeunes un garçon et une fille moins de 35 ans pour rejoindre le groupe parce qu'il y avait Boubou Soumaré et, et, et, et qui était membre, Boubou était même le secrétaire général, Boubou Miram, bourse d'étudiants en France. Quand je vois le maire, ce n'est pas pour la première fois, tout le monde sait que je n'étais pas dans la liste du maire. Aujourd'hui, le conseil de la jeunesse m'a formé, m'a formaté pour que je fit tam conseil municipal au niveau de la localité. Parce que le rôle du Conseil de la jeunesse, ce n'est pas d'organiser des activités génératrices de revenus, mais plutôt d'organiser des activités de formation, d'éducation et d'orientation. Pas plus tard que ce matin, on était en co-organisation avec le Conseil de guinée sur les finances publiques, qui était animé par un formateur qui est professeur, à professeur de droit public à l'université de C'était au niveau de guinée sud où 20 jeunes de guinée Nord ont bénéficié de la formation. Certes, on ne peut pas aller dans les, autres organisations pour leur demander de venir. Mais c'est ce qui fréquente la, structure, à chaque fois que besoin en est, on a des formations qu'on nous propose. On demande à chaque association membre d'envoyer des représentants selon le quota qu'on nous a alloué pour être formés gratuitement. Raison pour laquelle ce que nous concerne, c'est l'éducation des enfants, l'accompagnement de, nos, frères jeunes. Parce que peut-être que Moussa, il nous taquine en disant que nous sommes des jeunes vieux, parce que ce sont les responsabilités à l'âge de 21 ans, tu deviens directeur. Jusqu'à nous sommes dans notre 20e année de service avec les responsabilités. C'est fort probable que <laughs> cette texture va changer. Raison pour laquelle l'année dernière, avec l'appui du maire qui nous a subventionné, on s'est engagé à organiser un patronage de 21 jours où on a eu à former 150 enfants. Les patronages sont régis par les textes de l'éducation nationale. Les formateurs qui étaient présents sont des moniteurs diplômés d'État, régis par le 119 1165 du texte du ministère de l'Éducation nationale. Donc il n'y a rien de folklore. Peut-être si tu ne comprends pas, c'est une autre forme d'éducation qu'on devrait donner aux enfants. en, collaboration avec, les autres membres du CDJ, on s'est dit que la somme qu'on qui était à notre disposition n'était pas très fameuse pour faire des formations. Donc on va tous se focaliser sur la formation des petits enfants. De la petite enfance, d'où les enfants âgés de 7 à 13 ans ont été euh, regroupés au niveau de l'école. Et de ce fait aussi, nous remercions la municipalité qui nous a accompagnés pendant les 21 jours. Merci encore, monsieur le maire. Dans la mesure où, à chaque fois que vous subventionnez, vous, vous aidez les associations de la localité, quelle que soit l'entité, vous le faites au nom de du Conseil communal de la jeunesse parce que c'est l'organisation fêtière de toute organisation de jeunes. Donc je vous encourage, je vous dis que ces temps-ci, nous, traversons des moments très difficiles. Nous sommes au devant de la scène médiatique. Mais je me dis que c'est ce qu'il dit. Aujourd'hui, le formateur de l'ICAT, lorsqu'on a pris la parole, lorsqu'on a fait nos, interventions par rapport à Zot, lorsqu'il il s'est dit que bon, l'aperçu qu'il avait de la population de Guinara et ce qu'il a trouvé sur place, est différent. Maintenant, il faut, le mot n'a son sens que dans le contexte où il est employé. le mot ragal du djégiraay dama koy positiviser jàppee du parce que diplôme compétence ni n'y a pas wax ak débat sur le plan intellectuel boo ñu a des diplômes académiques, diplôme académique compétence aussi donc ce que je dis je le dis à l'endroit de tous les jeunes soyons des jeunes qui sont toujours à la table et ne n'admettons pas d'être des jeunes qu'on met sur la table pour débattre de nos vies. Mon goût, l'avenir des jeunes c'est demain. Non, non, l'avenir des jeunes pour moi c'est aujourd'hui. On doit commencer aujourd'hui pour bâtir. Parce que la jeunesse est éphémère. Demain, c'est ce que les jeunes de demain vont faire que moi en continuité. Encore une fois, merci M. le maire. La subvention, vraiment, c'est venu à son heure. Nous les remercier. Et ce n'est pas la première fois aussi que vous le faites. Et à chaque fois que aussi le conseil a des activités, vous êtes toujours présent. Certains, ne me connaissent pas, ils, voient beaucoup plus les autres. Parce que moi, on est frappé par l'âge, mais par les textes, on ne peut pas quitter. On met au devant les jeunes, on les accompagne, on n'intervient que quand il y a un problème. Et vraiment, je vous encourage, chers étudiants, vous êtes le miroir de notre commune, vous êtes les ambassadeurs de notre commune, et vous serez toujours les bienvenus au niveau du Conseil communal de la jeunesse et par rapport à vos activités. Tout ce qu'on peut faire, je l'avais dit l'année dernière à Maguette, si on est au courant, on pourra venir à vos côtés et vous épauler. Encore une fois, monsieur le maire, merci bien. Merci beaucoup. Merci. monsieur le maire Mangi lay nuyu la monsieur le maire Moussa madame euh, le maire monsieur et madame les conseillers nous ngi de nous nuyu nous, nuyu à CCDG bi nous aussi à à FM aussi avons commencer à nous. Je nga membre du bureau ñu avons des parce que structure de l'entreprise. est certes mais structure bi nekkul dizaine de personnes je suis avec Abdouba qui est l'adjoint de la pédagogie étudiant en licence de géographie Bassirou Rufal, étudiant en licence 3 au niveau de la faculté des sciences juridiques et politiques Fad Bintou Diaham étudiant aussi en licence 1 de droit Monsieur Barlo étudiant en master linguistique M. Ismaël au coach en informatique étudiant aussi au niveau de la FASEC M. Maguette Sar, qui est le chargé de la pédagogie qui est aussi étudiant en licence 3 au niveau de la FSJP, Faculté des sciences juridiques et politiques. Fatou Bintessar, étudiante en première année euh, de, la, de la FASEC. Baye étudiant en master 2, département d'anglais université Cheikh Diop de Dakar. Juste de m'introduire pour que séance soit tamit structure bi ay pas jité certes ay ñeneen jité ko mais ay xalé nekkul ay xale rek yam ci mais ay xale yi nga xam ne kenn ku nekk si ñoom xam na li mu bëgg xam na yoon bi mu nekk aussi mu ngi siy liggéey université tamit nekkuñu fa rek nekk étudiant simple ay étudiant lambda dañoo nekk étudiant yi nga xam ne dañoo impliqué wu ci gestion université bi j'ai été délégué à la faculté des lettres et sciences humaines et c'est pas donné à n'importe qui pour ñu fréquenter université xam nañ ci dara am na savoir faire bu mu laaj am na leneen ak leneen tey jii nii damay taxaw jël sama téléphone posté ni man ginnaaw raay noor laa dëkk et je suis fier kenn du ma wax dara parce que ñi ma fréquenté xam nañ ban genre nit aussi day def structure parce que à chaque fois nit ñi dañuy xam négatif certes nak fo dem dina am ño xamni dañuy wax défar am ño xamni dañuy wax yak mais ñun fep nous taxaw dañuy sétal raison pour laquelle ba structure bi commencé ñun ñu taxaw la relève il y a de cela un an et demi ñu taxaw wooteraale lépp te bañ jëlee structure ba léegi yaakaar naa ñu ngi ciy def ay jéego yu am solo bëri na activité yoo xam ni amaana gëjoon na fi am ci ay étudiants ñun ñoo ko indiwaat parce que man avec le bureau sortant benn moment collaboré woon naa ak ñoom mais mbir yi ni muy doxee ak bureau bii nii yaakaar naa gëj na fi am parce que bu ngeen seetloo muy daaw ak ren période bii nii lenn la ñuy def mooy dañuy am vacances mais duñ dem vacances su ji déedéet dañuy xëy à chaque jour chaque jour dem école barak woo xale commune bi daaw defoon nañ ko niveau CI ba troisième collège defal leen cours de vacances ren dañoo dépassé CI ba troisième ñu ngi ba terminal L ak S donc am na benn avancement bu ci am mais tamit am na loo xam ne tamit ñu ngi koy joué te ñu bëri amaana sax bàyyiwuñ ci xel parce que vacances lañ nekk fii gis nañ leen demee jur yu bëri ay góor góorgóorlu lañ dañuy dem liggéey tey dépense ko suba mënuñoo toog vacances amoo temps boo contrôler sa doom amoo ku la ko contrôler nga bàyyi ko ci kër gi dem liggéey yi mu génne dem géej lab fa parent bi ñàkk na mu génne dem dugg ci leneen ci koñ bi parent bi am na ay problème te xale bu nekkul ci jàmm parent mënul nekk ci jàmm maintenant nag ñu dajale xale yi yemuñu seulement ci jàngal leen mais dañuy dugg ci classe yi parfois toog jël benn une heure waxtaan ak ñoom yedd leen ci àdduna xamal leen ne lii mooy ay valeur yu baax lii mooy ay valeur yu bon am nañ ay professeurs yoo xam ne ñu ngi fa tamit parce que nekkul ñu kase ñooy jàngale di échanger ak ñoom di leen teg ci yoon di leen teg ci axe ba xale yi tey jii ni ëllëg dinañ am di yaakaar ni kat bu ñëpp dul rëcc sax majorité bi dinañ rëcc. parce que am na loo xam ne yàlla moo koy bind muy dox ñun nag am na loo xam ne duñ ko nangu duñ ko seetaan mooy que ni si ay quelque fait nit ñi dénigré ci benn population wu lëm ginnaaw raay ñun dañu fiy dox heure bu ñu neex te dara duñu dal dañuy génn fii heure bu ñu neex dem jàngi te dara duñu dal sant yàlla alhamdulilah am na koñ yoo xam ne nii ñu leen di wooyee ay cité wala ay leneen wallahi boo fa jaaree 22 heures dootoo ko defati te pourtant ñooñu lañ gën a respecté que wa ginnaaw ray te ginnaaw ray gi bu mu fee dox 5 h du matin dara du la dal bo génnee barki démb gis na ben vidéo Nord 22 h ñuy agressé nit Saint-Louis loolu est-ce que am na ginnaaw raay non non donc yenn yi du tax rek ñu jël lépp na ginnaaw ray dafa bon ci négativité pour mo juggé ci lool damay ñëw ci monsieur le maire ci geste bi nga xamni def nga ko tay dajalé structure yëpp fi pour subventionner leen euh, damay juste emprunter ben adage qui dit que mieux vaut tard que jamais alhamdoulillah mujj nañ ko def ñu ci sant. mais tamit dañ ciy profité waale gën leen ñaaxaar rek parce que ñun moom amaana suñuy topp di wax nekkul sax lu ñu neex ñuy dugg ci ay group wala ñuy bind ay communiqué bu ñu sañoon dañuy bokk ci structure yoo xam ne ñoom la ñuy njëkk a pour ñu xam ne mu ngeen mën a génn subvention mais dañuy ñaan beneen yoon incha allahu rabbi même bu nekkee monsieur le maire moom si jëm boppam mooy dem mu def pere sax mu jox étudiants yi na ko def parce que lan am na ñoo xam ne ñu ngi seen ginnaaw ñu war leen jàppale ñu am logement ñu war leen jàppale defal leen ay don de ticket ñu war leen jàppale si leneen ak leneen bu yéexee rek mun na am benn genre impact bu mu am ci seen jàng lenn nag moom mënuñu koo bañ mooy am ay jéego yi nga xam ne yéen a koy def ci éducation donc loolu dañuy sant yàlla di leen ñaan aussi ngeen gën koo yokk parce que comme li ñuy wax rek fas moom lu mu daw daw daw laabandi ko du ci wàññi dara donc di gën a ñaax à ce que côté boobu noonu ngeen gën a ibbil amicale bi ay buntu certes ibbi ngeen ko mais ngeen gën a ibbil amicale bi ay buntu activité amicale bi yëpp mairie bi su ko mënul koo xafe sax dis que chaque jour comme nous avons fait un partenariat le centre de la dañ mairie bu parce que dañuy neex parfois nous avons une activité def la commune de Guinaw Nord en parfaite collaboration avec les étudiants Nous wax sax l'amicale des élèves étudiants de Guinaw parce que l'un dafa am amicale bi mënuñu koo ci mairie La mairie bi mënuñu koo génne ci amicale bi bu ñu demee ci suñuy texte premier partenaire nekkul kii nekkul kii suñ municipalité bi monsieur le maire membre la bir biir amicale bi loolu texte yi ñoo wax man waxuma te texte yi yàgg na donc tey jii nii à chaque fois suñu suñu and dafa wara neex dafa wara rafet ba nga xam ne activité buñu sombu dañ koy amal inshallah allahu rabbi loolu dinañ ko ci yokku balaa may tej tamit dama leen di inviter yeen ñëpp ñi nga xam yeen ngi ci salle bi cours de vacances ñu ngi fi école barak lañ koy défé je pense que ci délai bu gàtt lañ waxtaan suñu bir nek ci amoon tamit problème moyen parce que cours de vacances ça demande des moyens chaque année gars yi bu ñu chaque fois dañuy chaque jour dañuy def petit petit déj pour les encadreurs dañuy def thé pour les encadreurs xalé yi ku ci ñëw amul kay wala amul bic structure bi ñoy démené wu pour jappalé leen ci lool parce que xam nañ contexte bi ñuy ñëwé donc dañuy inviter kenn ku nek si ñu nekk si séance bi rek ñun lenn lañ soxla moy soutien ñu nak soutien financier rek mais soutien moral dafa bax soutien physique dafa bax soutien benen dafa bax ko xamé sax mëno mais nga ñëw ba si ñun nañu kat encourager na leen li ngeen di def amna solo et tout lool dañ dañ accueillir avec plaisir parce que day wane ni ñu kat ñun kat li ñu nekk di def waa commune bi ñu ngi ciy gis seen bopp donc ñu ngi ñëw di saytu parce que bërki dem ba gis nañ euh, comment dirais-je benn bàjjenu gox bu fa ñëw def ko mu nekk loo xam ne lu ñu saluer la donc tamit xam nañu jot bi bëriwul yëngu-yëngu yi bëri na fi leen di soxla bëri na mais ñun tamit dañ leen di soxla te ñun bu ñu leen soxlaa yaakaar nañu ñu bëri dañoo war a ñàkk ndax ñun ak yéen am na loo xam ne nii sekk nañ ko leen wax tamit ni dans dans dans l'avenir comme

balaa may tëj rek ma brocher ko euh, le PCP moom ma koy fàttali mom moom mu yor wàllu pédagogie bi Maguette en 2022 meilleur élève du Sénégal niveau BFM ginnaaw ray noor la génnee tudd Ali Mafal donc lolu fierté lay doon su ñun bu amé genre nit ñooñ fi lolu amna lu bëri lo xam da kay wax ñun ñi nek université amna na si ñun ñoo xam dañuy majoré en fi ñeneen di def leneen ak leneen donc fi amna xam-xam fi amna jang fi amna xel mu sell leneen lu way di gëm nak lolu moko gëm di leen santal bu baax di leen gërëm merci beaucoup. former informer éduquer ak orienter donc mu nekk loo xamante ne dafa dañoo bokk benn bi ñu nag ñi nga xamante ne ñoo nekk étudiant yi ci commune donc ñu bokk li ñuy xeex ñoom aussi ñuy rafetlu seen liggéey parce que gis naa ñu ngi def tey cours de vacances gratuites dem na instant ñu ngi def ay inscription te am na ñoo xamante ne amuñu moyen donc loolu c'est à kon mun naa ne lépp lu ñu mën a jàppale rek te lépp lu ñu lay jox ñu jàppale leen ko rek waroon nañ ko mun a gën a yokk conseil de la jeunesse bi aussi Pape Malick moom dama bu baax ndax daf ñu daf ñu cee tette yaru ci ci teg ñu ci yoon yaram ak ci dalam ak ci dëggoom mu nekk aussi membre ci conseil départemental moom ñoom Moussa di ci liggéey benn liggéey bu am solo boo xoolee tey dañu jógee ci benn formation ñu jëlee ci xam-xam boo xam ne amaana sax dayoo la ñu toog tey duñ ko ci jëlee te tey ñun ñu apporté tey mënoon naa fay toog te du ma ko a am donc mu nekk ci wàllu conseil communal de la jeunesse mu ne ginnaaw raay ma la ginnaaw raay si donc mu nekk ay actes yoo xamante ne tey ñu ngi koy def parce que boo xoolee conseil bi formation yi ñu fi jot a def yëpp dañ ko def mais dañ daan sax cotiser pour def parce que manque de moyens ak ni ñu war a jàppale daal ñu ko jàppale kon boo demee ba subvention yi nga koy def. dañ leen ciy remercier bu baax boo xoolee patronage bi ñu mujjee def patronage bi am na loo xamante ne peut être am na loo xamante ne bu ñu ko yoree woon sax mënoon a déplacé fii parce que dafay ñëw ci éducation ci li ngeen wax la xale am na loo koy éduquer à bas âge am na loo xamante ne bu màggee dina ko ragal a def boo xoolee fan yi ci ginnaaw am na loo xamante ne xew na ci ginnaaw raay bokk na ci liy gënal tax nit ñi dinaa ñu koy wax ci ginnaaw raay mu ngi noonu di gën a saluer tey suñu image te tey ñii li ñuy def. te dafay raxas loolu kon mun naa ne ay ministre ak président de la république sax mun naa génne ci commune Guinaw Rail mais dafay fekk tey ñu jàppale ñu ñu épaulé ñu ñu encadré ñu parce que nga xam ne sa war nañ ba tax ñuy def liggéey bu leen neexoon tey kenn ku ci nekk nga jël sa yoonu boobu mais tey ñu participer massivement ci li nga xamante ne mooy éducation bu Guinaw Rail éducation de jeunesse bi kon maire ñu ngi lay gën a ñaax dama naan man sama waxtaan boobu kenn dama naan lépp lu ñu leen ñu leen doole lool ak seen yi nga xamante ne mooy étudiants élèves yi nga xam ne ginnaaw laay ak conseil de la jeunesse bi ñu leen jox ci loolu parce que am na ay formation yoo xamante ne ñu ngi suñu kanam ñu war ko def dañuy am ay problème moyen parce que loolu mooy dëgg la dañuy am problème dañu fi daan def ay formation yoo xamante ne am na ñoo xamante ne ñu ngi ciy jënd da ci mel ni sa wàllu liggéey ñoom tey ñu ngi koy def bu ko jaayaat suñu élève bi am na ñoo xamante ne ñu koy def yéen ñu ñoo ko suñu doole nga ñu dem dese donc li may day gën a ñaax mooy gis nañ lépp li ngay def damay dañ lay ñaanal yàlla bàyyi ko fi nga continuer ak sa sago mais gën leen a jàppale bu baax a baax moo am ma ko ñaanal rajo bi mu dem ba àgg ñu ko dem dem di seetaan parce que mu liggéey loolu am solo am solo bu baax mais ci man jeunesse bi laa gën a insister mais jeunesse bi dañ leen jàppale jeunesse bi nañ leen gën a épaulé jeunesse bi nañ leen gën a encadré parce que li ñuy def ni dafa raar te dafa jafe boo xoolee commune Guinaw Rail yi di def. ngay defal ay ndaw yoo xamante ne tey bu école liggéey mënoon nañ di dem di traîner di dem ci saret bi di dem fu nekk xëy na fexe ba indi leen di leen jàngal ci gratuit yaa ngi participer ci éducation yaa ngi ciy participer bu baax kon naa ko maa ngi doon moo def wax te liñ ciy def ni meer moom la ciy jaajëfal donc dañuy ñaan rek nga yokk bu baax a baax ñi ñu jar a jàppale waaw je parle en tant que présidente de la commission de la jeunesse étudiants yi ak la jeunesse bi mu la parce que bu xoolee sànq wax nañ ko tey ay eh, membres ngeen ah, ci biir bi nga xamante ne mooy conseil de la jeunesse donc war nañoo mën a élargir def daal affaire yi sax nekk te boo waxee da ngaa naan les élèves étudiants la jeunesse pourquoi war naa Aliou Seck man maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax que au dañuy gis liggéey bi nga xamante ni yenn communes yi ñu ngi koy def mais tamit dañuy am fierté bu ñu gisee ni suñu commune desul ginnaaw am benn visibilité bi nga xamante ni moom moo souvent lay wax man loolu rek laay doy ci commune bi am na ay tête commune bi am na ay leader mais visibilité bi des Ce format nous Moussa féliciter leen si parce que nous permettre un changement un en partage d'expérience parce que tout à l'heure vous avez alors alors alors alors alors direct qui structure yi la nous parce que peut-être qu'on est un peu administratif parce que ñu ngi ci sa Thiaroye bi di gis ay doomu ginnaw ray yu ñew di jangé ci li sa Thiaroye bi mais damay wax toujours nañuy fexé di formaliser wu parce que ëllëgit si biir vous êtes appelé à devenir quelqu'un ëllëgit si biir vous êtes appelé à ce que ëllëgit si biir ngeen tok place bi tay mer tok wala benen place ngeen nek fa donc je me dis que ni tay ji bu fekkente ni nek ngeen yenn structure ngeen am sen PTA

Lire, lire, lire ak lii lañ soxla fii ak fii ak fii lañ toll ci seen déroulement des activités et c'est pareil pour le conseil local de de la jeunesse Benen bi tamit je exhorter euh, exhorté monsieur le maire Moussa Dieng di ko wax la commune normalement toutes les structures qui nga dans la commune la municipalité doit avoir une base de données c'est-à-dire que les xamante qui mi ngi déroulé ci commune bi structure bu fi mu am une base de données peut-être que amoon na fi mais actuellement il est temps que ñu réactualiser ko yu bees yi nga xamante mom mo fi nek ñu bees yi nga xamante ñom lañu fal commune bi am ko bu ko défé ñu mëna xam kan lañuy waxal il y a des potentialités dans la commune buma xolé les étudiants souvent dama kay wax maire ma ne ko maire on n'a pas besoin de chercher loin parce que dans notre commune il y a des étudiants yi nga xamante kérok dama dem euh, Bambey pour suivre cette mémoire mais j'ai vu des enfants de Guinaw qui yu nekk foofu graduation là j'étais vraiment très fière parce que je me dis que au moins cette jeunesse là elle est consciente Comme nous, les leen ñaan un défi à relever Je ne vais pas ñun parce que nous, nous ay mais vous avez un défi à relever mooy lan redonner le blason de la commune comment les cours de vacances c'est bien beau mais aussi nous devons réfléchir comment faire pour activer ces enfants là tout le long des vacances des trois mois parce que c'est un am solo ay ne il faut que nous jëm leen inculquer comportement yi nga xamante bu café sax duñ ko sànni ci mbedd bi mais café boobu xam ne poubelle ba lañ ko jëmee ñu dem dugal ko ci poubelle ba nga xamante commune partout dinañ a c'est pour eux ci et ça va dina amélioration de notre cadre de vie vos projets vous en avez beaucoup dans la tête je salue de passage le directeur du centre commercial. Mais je me dis que, mais def len projet yi ngeen tégal ko maire ci kaw tablam. Bu exécuter xayrut, bu exécuter wul amna ci yenen bras technique yi nga xamantene xate meun nañ ci def. Buñu ko deful lepp meun nañ ko def à moitié. Lañuy dem di wuti ji ëlëk ci yenen commune jambu ñu dem di fa liggéey di fa fighting di ñak. Pourquoi pas ñu def ko fi ci suñu commune. donc ci cadre yoyu lay wàccee sama cadre di len gërëm di len sante di len wax ni macha félicitations subvention yi c'est pas l'argent qui est intéressant mais li ngeen di liggéey ci loolu ngeen koy parvenir à la commune ba ëllëg si biir maire mën si xam li muy joxe ñing ci def li ak li ak li ñeneen ni tamit keneen ni tamit bu fi ñëwé mëna xam ni ah structure yi fi nek li lañuy ñuy je vous remercie. ma ngi nuyu monsieur le maire wal jojo ndjay

Maintenant, c'est la deuxième édition ñu ak pour jox leen de passage m'a ngi le directeur du centre commercial mon frère Kanfani di nuyu l'adjoint de l'état civil de l'officier d'état civil mbay ba mi ngi ci bi ngi koy nuyu di bu baax ndax wax ji mën na bari ndax sama collègue wax nañu fi répétition lay wax ju baax moom du doy mais dama leen di gën a ñaax yéen ñi nga xam ne yéen nekk ci amical bi Baye Modou tout récemment ñëw nga sama bureau am na lu ñu jot a waxtaan man ak yow ma lay encouragé aussi parce que am na ay proposition yu ma la yu ma la proposé nga xamal ma ni ma heure boo leen ñëwee loolu mën na nekk donc yéen a ngi yaatal mais ci biir yaatal boobu dama bëgg ngeen gën a yaatal ndax daan dajul suuf amical bi gën leen koo yaatal man sama première wax ak yéen ci bureau maire fële marché central au poisson loolu la won dama koy waxaat tey parce que y' a pas mal d'étudiants yu nekk bir ginaaw ray te gisuñu sen bopp ci amical bi donc gën len ko yaatal parce que ñoñu sen ay frères lan ñoñu sen ay sœurs lan te ci bir commune bi lañu bok subvention bi comme ni ko gars di waxé peut-être ben motivation la rek buñu len di jox pour ngeen mëna dérouler sen ay activités mais nu gëna gën gëna rafet.

ndax ñun en tant que ay yaay bu ñu leen gisee ngeen taxaw am na ngeen di def ak jeunesse bi ñun dootuñu tiit parce que dama naan li ñuy waxal ginnaaw raay même ci biir kër yi bu ñu ko feseetee gis ko mais alhamdulilah rabil alamin nous sommes tous issus de très bonne famille bu ñu gënee taxawal taxaw gën a defarwaat rek suñuy doom suñuy raq dinañ xam ëllëg fu ñuy dem parce que comme ni ñu koy waxee di saliir dellu ginnaaw raay di ko yàq mais ginnaaw raay ay noble fi nekk. ay nit ñu baax kese fi nekk ay yaaram kese fi nekk donc yéen ñi nga xamante ne tey yéen la yàlla teg ci kanam ngeen jiite seen ay rak yéen yéenay gën a takkuwaat gën leen mën a ñaax ci ñuy jaar fu baax di def lu baax di ko wax ndax àdduna bi instant yi dafa lëj trop dafa lëj dafa jaxasoo ñoon en tant que jigéen en tant que ay yaay dañu sax tiit ci li ñuy dégg wala ñu koy gis kon nañuy ñaan yàlla rek yàlla jàppale leen bu baax lu ngeen mën ren yàlla ngeen mën dëwén lu ko ëpp di ëlbatiku aussi di ñaanal monsieur la maire wal jojo ndax man dama naan mom ànd du gatché ànd ak wali fierté la ndam la ndax day day njit lo xamante xamna bu baax fi mi tek tànkam xamna lu muy def te musul taxaw feug dënnam ne li dama koy def lépp lu mu nara def day woo njabotam waxtaan ak mom te ñun ñoy njabotam ci biir commune bi kon loolu ñun dañ koy rafetlu monsieur le maire mi xametul ban conseil municipal ci ban la jaar pour don conseil municipal ñëpp la yemale ñëpp la yemale man am naa ay mbokk conseil municipal yoo xamante ne liste ya ñu jaar list yooyu kese ñoo leen di satisfaire xaw ma njiit njiit ba ñu jaar ba nekk conseil municipal ka dirigé woon list bi kooku dong moo leen di satisfaire te bien vrai que ay conseil municipal lañ ca commune ba mais bu ñu gisee maire conseil municipal ba conseil municipal lañ koy gis waaye gàcce ngaa laa njaay loolu dalu la ñëpp nga yaatal ñëpp nga yemale ñu ngi lay ñaanal rek loo mën ren yàlla nga mën demeen lu ko ëpp ci barke Seydina Mohamed merci beaucoup. Euh, di leen wax ni man dama am mbégte ak kontante bi ma gisee maire toog ak jàkkaarloog yéen ndax jeunesse bii ñooy doon dara ëllëg te maire bu demee ba toog ak yéen jàkkaarloog yéen war leen a jox subvention xam ngeen ni maire yëg na leen yëg na euh, kii yëg na leen kon tey maa ngi leen di jaajëfal yéen di leen wax ni comme da ngeen a nekk di jàppale ndaw yi nga xamante ne ñoo nekk biir ginnaaw raay muy xale tout tànk yi nga xamante ne dañ nekk ci école bi ci commune bi daan taxawaalu vacance yi tey nga jël leen ci école yi di leen jàngal ñi ngi leen di jëfal leen bu baax a baax di leen wax noonu suñu doom yi taxawaalu di def loolu ginnaaw raay noor la am merci ma leen wax ni tamit jaajëfal leen Moussa bu baax ngeen mayal ma ko loxo ndax tey encadré na commune bi bu baax a baax moom maire ñun dañ fu ñu romb dañuy siggi ndax maire boo xamante ne tey dafa taxaw ne jeunesse bi ñor nañ ma kon tey jii yéen war ngeen a may loxo maire bu baax a baax a baax nga xamante ne subvention bi mu yëkkati leen ko jox subvention boobu nag na ngeen encadré tous les étudiants yi nga xamante ne ñoo nekk biir ginnaaw raay noor wan leen ni subvention bii dafa ñëw pour jàppale leen dafa ñëw pour dooleel étudiants yi dafa ñëw pour jàppale étudiants yi seen seen documents yi kon tey loolu bëgg naa ngeen gën ko ñaax ci biir ginnaaw raay ndax bari na étudiants yoo xamante ne bëgg nañ ci gis seen bopp bëgg nañ ci gis seen bopp ci subvention kon merci beaucoup encore jërë ngeen jëf Ndeye Fatou Cissé ak conseil municipal yi fi nekk yëpp madame le maire Fatou Gueye wëcc ak euh, janvier ñu ngi leen di nuyu di nuyu Maguette Seck di nuyu étudiants yi ak euh, conseil communal de la jeunesse bi fi ne Pape Malick nekk président bi di nuyu euh, conseil yi nekk si ginnaaw ñoom Abuja di nuyu ñëpp Moussa ñu ngi lay nuyu di nuyu tamit waa bi waaw duñ ñëwee nag dañuy santaat yàlla rek di leen remercier vraiment si seen teewaay tey jii nii si situation parce que am na solo lool vraiment ndax yàgg nañ koo xaar comme ñëw na nag sant yàlla waaw di remercier étudiants yi parce que daaw yaakaar naa ñoo ko fekkee ndoo woon toogoon ñu waxoon ci ne dañoo bëgg mu yaatu wa ilaa bu dee gars yi ñëwuñu it na na na lii bi lancé wu gars yi yëg ko xam ni lii te vraiment ku gis xam ni leeral ngeen ko si si réseaux sociaux yëpp wax ngeen ne étudiants yaa ngi nii ku bëgg a ñëw ñëwal mais teg nañ suñuy sart kon loolu ku ñëwul yaakaar naa si ñi ñi ñëwul la mais ñoom vraiment ku wax si daaw ak ren xam ni lépp lu war a bëgg a ñëw di nga ñëw ndax yëg ko mais nag ñi nga xam ni ñoom nekk nañ seen ginnaaw te ñëwuñu ñoom ngeen di lancé ne leen dem leen fekk ji ndax diwa ngi ne boole leen demee si moom mu wan leen yoon bi ñu ñëw lenn rek muy conseil euh, communal de la jeunesse bi parce que daaw biñ ci waxtaanee dama waxoon ne comme man jeunesse laa man bëgg naa si mbirum jeunesse dama siy bokk saf si sàpp ma waxoon janvier wax Pape Malick wax Moussa ñu boole maag janvier janvier doon nañ ci communiqué mais à part déggatuma ko waxaatuma ci dara ma neutre xam ni comme bu dee mbir moom lu mbooloo bokk la te yow da ngay doog a bëgg a ñëw bokk kase kenn eh, yaatalu la si dangay ngay stand xaar ndax daaw ba ren gisuñu ñu teg dara loo xam ni gis nañ ni suñu xaalisu commune bi ñu leen di jox lii teg nañ ko pour doxal ci si commune bi gisuñu ko moo tax ma ne woon comme nag du ñàkk ñu jël parole laaj ci tamit ne buñ ci bëggee bokk wala ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi sama ginnaaw bëgg cee bokk ñu ñuy def ba bokk ci bu dee yëfu ginnaaw raay la loolu nañ koo xam ñi ngi remercier ñëpp parce que comme tey du yoonu ay kii lu ñu guddal quoi di remercier waa ñoom. ci euh, journée synthèse philosophique bi étudiants yi sollicité woon nañ moom parce que aussi nit su la joxee xaalis man noonu laa mel suñ toogee ci mbooloo aussi damay répété waat la ma joxoon. buñ ko sollicité mu ne ma ah Moussa ñaata mooy baax ma ne ko ah daaw de xaw ma 100000 nga leen joxoon xaw ma mais ren jox leen 100000 mu ne ma non Moussa 100000 tuuti na. ma ne ko ah mu ne ma ne ko ah kon xoolal mu génne poosam compté muy 170000 mu ne ma 200 sax mais 170000 moo fi nekk kon jox leen ma maa leen ko appuyer. parce que aussi dafay baax aussi.

dinañ xam élèves yoo xam ne nii ñu néew doole te ren ISO incha allah dinañ ko dinañ ko defar donc leen xamal aussi ñi ngi ibbi suñuy bunt lenn rek moom moo ñor commune bi mooy na éducation dox man nag ndaw rek laa boo xam ne monsieur le maire moom moo may yónni li may def moom moo ma koy voilà donc aussi euh, di répéter aussi Thiaroye Ginaaw Rail Nord il temps aussi ñu féliciter leen ba maire na ma les deux maires de Sembou 2 suñuy joxe funtu scolaire ku ci nekk da koy jox ndàmpaay voilà da koy jox prime de prime de motivation ñaari maître CM2 yëpp su ñuy remettre euh, def remise fourniture scolaire ku ci nekk aussi dinañ jël enveloppe aussi mu bari mu néew ñu jox la ko pour au moins parce que ngay jógee 40 pour cent au CFA e, ñëw ba àgg cinq pour cent ren jii nii nga ñëw aussi entrant sixième entrant nga def cent pour cent lolu aussi du bax la te aussi biñ len waxee aussi dañ nañu suñ ko dafé ginaaw yalla mère motax parce que ñoomu ñu mère ci condition yo xam ne on est obligé d'avoir des résultats te aussi ñomit biñ len joxé liñ len jox kaddu yiñ ñu je pense bien que ni euh sama xarit sal euh maturo la ko tam di wax ba tour bi daf may reer maturo image yi su ko jiixee dina ko gis biñ len joxé dañu né ñun ñoo ci dess ñu ñoo war a jàngale ba dee te kon je pense que ñoom part du contrat bi ñu amoon na ñoom def nañ ko donc loolu aussi dafay baax ñu ñu ñu ñu man di aussi di remercier aussi CGE ba fa nekk CGE ba aussi ñoom ménagé wuñ benn effort Abou mooy mooy trésorier bi donc ménagé wuñ benn effort pour résultat yi mën a mën a baax voilà donc loolu lu ma bëggoon wax la donc man nag lépp lu ma def rek maire moom ma ko sant lu ma joxe moom moo ma ko moom moo ma ko joxeloo voilà donc je donc aussi c'est le moment aussi me remercier ko ko confiance aussi ensemble des agents, jox aussi conseil parce que aussi ni confiance nous la confiance Du nous avons du coup mais Bismillahirrahmanirrahim. rahmaani euh, rahim maa ngi sant ñëpp di nuyu ñëpp di sant kilifa yi fi di nak ci bi euh, l'adjoint au maire Moussa à qui vraiment je dois rendre hommage pour euh, liggéey bi nga xamantene abattre na ko fii ci commune bi di chat and ak ñep sans pour autant xool kii fii la far kii fële la far te loolu moo so am solo ci ànd damay faral di wax ne ni kii développement mënta am te solidarité amul ndax fukk buy gas fukk di suur gisuma ci lenn loo xamante ne développement dina am te loolu il faut nit ñi di ci bàyyi xel moo tax taxawaayam sans pour autant mu xool ne ni ki kii fii la bokk kii fële la bokk man moom lay rafetlu ba franchement ma am yéene di ànd ak moom di ko dënk muy liggéey mbir mi di sant di gërëm aussi Adja Fatou lu jëm ci jigéen ñi ñu ngi koy doxalee ma kontaan ci lool di ko ci sant aussi di sant ki nga xamante ne tey mooy euh, Fatou Gueye ndax Fatou Gueye yàgg nañ di ànd

balaa muy am ay doom danga koy traité am li ngay doxal ak garab gi ci boppam ba mu meññ nit ñi mun ci jëriñoo te tey gis na ne ni ki safet googu am na fu mu egg ndax dem na ba jiite PIDES te PIDES googu mu jiitee moom xam na ne ni ki jigéen ñi àndoon ak ñun ñoo ko fa teg kon tey ngàcc ngaalaama aussi moom mii nga xamante ne yor na réseau bi di ko doxal ba tey mu ngee dox pour vous dire que àdduna noonu rek la solidarité moo am solo individuellement ku ne niki mën nga doxal yow kenn nax nga sa bop do dem koku il faut ñepp ñu and maase xam ne ni commune bi pour mu mëna dox ku ci nek def ci wara japp ndax kenn na tablé wol ni niki man bima nekul maire ndax il faut mo wax ko dama si doon japp mais tay il faut ñu wax ko dañu wéet dañu wéet ndax ku nek yaangi xëc sa bor lolu nak defarul mais day yak te ku yàq jàpp na ni ki maire ngay yàqal nax nga sa bopp ndax ñun koo ci gis si ñun am na ci lu mu téye ku ci nekk si ñun am nga li nga téye am nga sa qualification ba egg fi nga war a egg kon loolu il faut ñu ñaax nit ñi ñu xam ne ni ki liggéey bu jotee na ñëpp ànd liggéey bu politique jotee ñu politique mais on peut pas passer tout son temps ci ay réseau di wax toog sa kaw lal di wax mu akaam ak maa yomb yomb na lool waaye nekk ci terrain bi di liggéey foofu la wax ci te am na lu ma leen waxoon yéen étudiants yi teru ci saal ba ne naa leen ñu ngi tabax mairie bi yaakaar naa te ngeen seen bët ne woon nañ leen leen ki maison la jeunesse ñu ngi koy tabax dem leen ngeen xool ne woon nañ leen maternité bi dina am dem leen ngeen xool ne woon nañ leen ni ki canalisation bi ren li ñu fi dugal près de près de 1500 mètres 1 kilomètre 500 de de de de de PVC dugal nañ ko ci suuf. lu kenn du kenn du kenn dul gis ndax loo gisut ab politicien li mu bëgg toujours mooy li muy gis mais ñun dañoo jàpp ne dëkk bi dañ ko war a defar néewuñu fi pour waneewu néewuñu fi pour ne ni ki damay defar li nit ñi di ko gis loolu tax ñoo jóg ndax ku ci nekk si ñun tey politique bu weesoo boo toogoon sa kër yaa ngi am sa salaire mun a dundal sa njaboot kon loolu aussi i fa fallait que ma leeral ko di sant di gërëm aussi ñi nga xamante ne tey mooy président commission yi toog fii alpha tamit assainissement yaakaar naa ñëpp ñu ngi koy gis terrain bi ñëpp ñu ngi koy gis éclairage public et sécurité Abuja ngi ne lu toog yaakaar naa lu jëm ci wàllu éclairage public foo turlee nga dëgg Abuja ñëpp di ko wane ko kaay dañoo tàllampa bi di sant nag di gërëm ñi nga xamante man dama jàpp ne ay ténor la ñu au niveau de cette commune ya Malick à l'entendre parler da ngay xam ne kii euh, c'est un je pense que euh, aduna loolu rek la c'est-à-dire ñaax nit ñi jàngal leen

mais mom kéro nous ak matérielam pour l'intérêt exclusif de Guinaw raynor. Nord donc ko aussi war centre ko bu baax ci ci côté sans compter aussi Ibou mais également étudiants yi nga tay ñoo Nous ak sama sama sama jigéen moy euh, Javier aussi nga xamante ne tey xam nañ c'est une la waaw ci liggéey ci ki nak mom tamit kazalik moy xam ko mom ci walu développement matilo madame lo aussi kazalik sans compter aussi Ahmed Sal, mom xam un grand technicien de Guinaw ray nga xamantene lu xew mom jaay jaay sunu image di sante ñep dal di gërëm euh, étudiants yi comme li ma nee naa leen ne ki samay doom ngeen ndax ku làq presque léegi nga làq soixante-deux ans doo xale mun naa ne sa troisième âge la mais yàlla mooy dogal yàlla mooy namm def ci doomu aadama loo xamante ne tey même bu weesoo at yooyu yàlla mooy en tout cas moo yore ay mbiram man toujours foofu laa koy wékk mais li may ñaan mooy tey ma dem ba ñi nga xamante ñoo ànd ak man tey yaa ngi dëgg fu ma toog ñu toog fa ndax li nga xamante ne mooy suñu yéene ñoom ñu mën koo matal te ci tànk yooyu lañuy dox di di wax ne li ma déglu nit ñi tënk ko tey fii nga xamante ne mooy euh, euh, fii nga xamante ne tey euh, appui bu ñu war a def jëmale ko ci association yi nar koo def fii boo dégloo nit ñi da ngay xam ne ni ki ginnaaw raay raflewul ay borom xam-xam ginnaaw raay raflewul euh, ñi nga xamante ne tey seen yéene mooy ginnaaw raay jëm kanam seen yéene mooy ku ci nekk si ñun nga am taxawaay joo xamante ne foo taxaw yëkkati sa loxo rek nit ñi jox la cër te ñun moom lañu ñu xeex ndax xeex lu jëm ci wàllu rafetal sa image yu dëkk dafa am fàll yu bëri ni ñu koy defee. si vous vous rappelez jamono yooyu ma doon def meeting fii je faisais venir des ministres ici dans cette commune là maa ko fi tàmbali woon def ay meeting te meeting boobu su saa ñu ko doon def ñii dañ doon xaw a ragal jàpp ne fii y avait que des délinquants mais yàlla dimbal na ma ñeenti meeting yu ma fi mës a def indi pratiquement ay autorités yoo xamante ne tey ñoom ñu ngi doon doog a dugg fii ci ginnaaw raay mais.

Et cette sensibilisation-là, il va falloir quand même inclure et prendre en compte toutes les sensibilités de la commune. loolu moo ci parce que tout nañ jamono joo il y a certains jeunes qui sont laissés pour compte sans accompagnement sans appui alors si nous bu ñu pour compte ah mais ça va sans dire que ces jeunes là ni ñuy mel ëllëg. bu ñu demee ba mel noonu certes seen parents bokk nañ si waaye ñun aussi nga xamante ne ñun suñu rôle mooy fexe ba ñu jëm na a aar jëm leen couvrir ah bu ñu ko def tamit day mel ni am na loo xam ñu ko kon cours de vacances bi ngeen bëgg a def nii euh, jaar na sax jël kii dugg ci dëkk bi pour xale yi gën a mën ñëw parce que xale bi ñu ñëwee du caage ne dañ leen di jàngal rek créé à

yaa ngi dëgg tur neex na lool waaye aussi bañ ku la yab tamit yaakaar naa ku ci nekk su ñun nangoo ku la yab ba tax na ba des fois dinañ ne woy waal ni dafa téye boppam non duma ma nangu ku ma saaga duma ma nangu ku wax loo xamante ne demewul noonu kon tey devoir la si ñun ñëpp ñi nga xamante ne ñu ñoo fi toog comme nu ko nit ñi waxee bi ñu taxawee fii ndax ku leen dëgg du nga xam ne ñii ay borom xam-xam lañu ñii yàgg nañu di gérer ay ndaw. ñii yàgg nañu di joxe ay conseil donc man li ma jàpp te li ma gëm mooy lu mel noonu ba nga xamante ne day tax ba ñun en tant qu'autorité locale yàlla puus ñu xiiriñu ba comme li ngeen ko waxee nii dinañ si waxtaan pour xool lu ñuy yokkalee par exemple étudiants yi lu ñuy yokkalee aussi comme ni ñu ko defee pour les ASC parce que dinañ yokkal pour la jeunesse parce que kii wax na ko léegi te lu am solo la wax Moussa wax na ko te lu am solo la wax junjul na aussi ci li nga xamante ne le rôle que ngeen war jouer parce que quand il s'agit par exemple de la formalisation elle l'a dit tout à l'heure c'est important parce que je pense qu'on a eu à échanger par rapport à cela dama une structure respectée qui veut se faire respecter par tout le monde dama ne da nga war a am sa këyit nga xamantene ne ëllëg fu nit wax nga tégal ko sa këyit bu boobaa du la mun a mais am fo xamantene tay ne fa éggé rek nit dañ koy may lu mu leen di wax te ñu fa egg motax c'est bien d'ailleurs ki bu mu nee ni kii récépissé bi amna buñ ko xolé dañ ko gis pour légui nag buñ ko gissé ñu mettre ko à votre disposition. yaa ngi dëgg waxoon na fi PTA c'est par rapport au plan de travail annuel kooku yaakaar na pour tout élève tout étudiant tout intellectuel ñep xam nañu ni les gens actuellement travaillent sur la base d'un PTA té lolu bu wonee xarañte organisation bi on est aussi à association bi mais également day permettre nit ñi ñu xam ki ñi fu ñu aussi parce que lool yépp nak dëgg ci yu mel des fois leen tout pour quand même nous présenter ce que l'on appelle un rapport d'activité annuel beaucoup daf ñuy permettre parce que même ñun mairie bi sax man nañ ko euh, comme commencé là parce que bien bi dañ ko reconstruire les plan de travail annuel d'abord le plan de travail annuel mais également rapport d'activité annuel bien nga de 2022 bien et fi ñëwee 2024 pour nous jëm produire mettre à la disposition de la population nous avons exactement li lañ pas parce que conseil rek parce que c'est le conseil municipal bi nous war a xam exactement nit ñi nu dérouler seen budget mais aussi ñi nekk ci biti nga xamante ne mën nañ lire ñu xam exactement les nga xamante aussi mon lañ doon def durant depuis 2022 euh, yooyu aussi dafa nekk loo xamante ne tamit lu rafet la parce que boo jëlee yeneen communes ou même certains départements da ngay gis prends le cas de Khombol avec euh, l'inspecteur des impôts et domaine là qui est maire également de Khombol faut présenter rapport d'activité annuel Vous parlez plan de développement local aussi Pourtant, ici, ci am dégager ça pour engager des experts pour travailler là-dessus et ces experts là seront plus de travailler avec vous les étudiants et certains experts de la commune pour ne serait-ce que produire un document pour maintenir. Mais vous finissez, il suffit tout simplement de référer au document le euh, plan de développement local boobu pour nga mën dérouler sa programme parce que pilotage en vue fu mu am rek arrangé wul dara moo tax loolu dinañ si kii parce que am na lu ñu war a dégager déjà waxtaan nañ pour quand même ñu mën produire produire benn plan de développement local loolu dina tax ba ñu mën planifier lépp loo xamante ñu ngi koy doxal yéen ñii nag nga xamante ne tey yeneen étudiants yi lu ñu leen di ñaan mooy ngeen ànd ak ñun waxuma ànd ak ñun politiquement man je ne fonctionne pas comme ça parce que on naa rien que faire nee naa leen man du ma ci di ne ko kañu and ànd nañ nak convaincre la ci ni ñuy doxalee. ngir yalla kay nga jàppale ñu non dañuy bay ku nek ak xalaatam comme liggéey lañu ñu 5 ans bu jeexee nañu évoluer mais lenn xamna ko mom 5 ans bu jeexee ñun duñu sëkk lolu wóor na ma ni ki duñu sëkk dañuy siggi xol nit ñi parce que nit ñi nga xam ne li amul ken ko ko fi mos def te effectivement limay wax dafa fu tek ko teg te bés bu bu ñëwee fii la ñu évaluer ko maintenant on laisse à cette population là maintenant de juger lolu mom ku ci nekk ñu bayla ak sa xel ak sa xalaat parce que nee ni leen fi du kër mbubu la rek dang koy sol yaa ngi dëkk bu démé bu waxtoom bu ku mu jot boo ko sol ya koy sol parce que suñu borom mom moy mayé suñu borom bu ne diw la diw la mun nga am yaakaar balaa veille non 2014 dal nañu fi ñëpp newoon nañu waali la yàlla ne ni ki du moom mais gis ne ni mu demee woon kon yàlla moo yore ay mbiram te ku gëm yàlla doo sonn ci àdduna xam ñan ñooy sonn jàpp sama dund lii ci laa war a dund ne ci mooy nag ne duma ko bàyyi mooy indi jëye gis nga mais mais ñun ñi nga gis nii bés bu jotee ñu gis ne ni ki diw la bu doon dañoo dem buñ ñu gañee dañuy félicité dem nag ki leneen di liggéey ñun sommes lañu gëm ñëw pour ne Nous fi du dara ku ci nous am central j'étais là-bas non Nous wax nous man leen ngi fi am sama xel pour vous dire que gis nga la note d'affectation la le 11 lañ mako jox kenn le 11 amul nous bu ko confidence confidentiel la je l'ai gardé ne duma ko wax ken parce que ko waxee nit ñi ku nek day commentaire ne dina dem du dem ciowli nangam duma bay ba mu des deux jours passation mané duma andak ken man ken ma dem mais dama tok ñom Moussa ne non non duñ sétane man dama jëk ci génn rek gis près de 20 personnes ñu taxaw parce que pour won nit ñi ne nit fo nek suñ borom mo lay tracer sa yoon borom bu ne fi paré nga yow nga da ngay forcer lu la ci fek ya ton sa bopp c'est comme ça donc mbir mi noonu rek lañ koy jappé avec philosophie kon man lima len di ñaax lima len di ñaax xaalis du dara xam nga lu gëna am solo ñu jappo ñu dimbalante ñu jappalante pour que cette commune là ci position bu mu nek ni mu jógee ci bu ko fi ñëw mu naw ñu ci walu infrastructure ci wàllu éducation ci wàllu santé ci wàllu même lu jëm ci wàllu jeunesse bi ku ñëw naw ñu ci jeunesse bi nga xamante ne moom la ñu am man sama philosophie ak sama doxalin noonu la moo tax man boo gisee souvent ñi ma àndal nii ñoom Moussa may ma am may am courage sax di leen parce que je sais que dafa am benn benn personnalité yaa ngi dëgg kenn du ko yàpp te pourtant li nga gis nii dañu waxante dëgg des fois mu tàng. mais quand même dëgg bu feeñee da ngay nangu du caage ne yaa ko jiite rek dëgg feeñ ba noppi nga ne da nga si teg sama tànk non non kooku ànd boo gis nit ki dine non lu ma wax moom mooy am même bu doo yaa ngi ci njuumte mais du dox boo gisee ne suñu ànd gi mu dox ba ñëpp ànd nekk benn ba yenn yi ñu di ko réaliser te kenn déggul coow parce que kenn déggu fi coow ñu ñii di liggéey. coow li ci biti la ñi nga xamantene ne fekkeewuñu xamuñu ñoy coow mais en réalité do deug coow ci ni ñuy liggé c'est parce que y a une entente parfaite une certaine harmonie qui nous a même permis en en en en en laps de deux ans en un laps de temps ñu mëna def réalisation yi kon man ma ngi leen di sant di leen di gërëm bu baax di leen di ne vraiment euh, lii du dara mais ñaan leen yàlla déwén bu soobee yàlla. li nga xamante ne euh, dinañ ko ci dool surtout euh, euh, TV ginnaaw raay TV ak jeunesse bi moom dinañ fexe moom vraiment ba ñu jàpp si lu am solo ñu def ko si waaw bu sooy kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërëjëf. donc moom laay woo ak Abuja ñu remettre waa CCD waa rajo rajo Raay bi FM seen seen enveloppe. abu abukaay euh, cérémonie bi voilà am après war nañuy subventionner les femmes après les les ASC voilà yooyu après dans la semaine donc dañ ko ñoko préférer def ko format bi ni donc di remercier ñep di gërëm ñep ñaan yalla yalla may ñu dajawaat fi heure bi bi dama bëgg féliciter d'abord euh, Moussa ci organisation bi parce que bo len seetloo organisation bi lu jëm ci woté ba ñu tollu fi mo def lepp ande si ak ñu war mais yëpp nag moo ko def man dañ ma dañ ma wo rek ne ma kay nga nga fekke mbir mi nga joxe enveloppe kon mom il faut aussi ñu féliciter parce nit bu liggéey bu soxor aduna toujours mo wax ko ni ku liggéey féliciter ko ngeen bokk parti baña bokk parti ak lu mun a doon mu doon tubaab ak nga doon nit ku ñuul ak ku liggéey

lii buñ ko doxalee rek ñun ñi nga xam te ñoo fi nekk bokk ñu jëmukaay saa ñëpp xam nañ ko am la ñu bokk am la ñu àndul mais quand même dénominateur dénominateur commun ma nga xamante ne mooy ginnaaw raay nañ ko fonk nañ ko téye mu jëm kanam ñu bañ a yàqante man daal foofu lay invité nit ñi ba politique bu jotee nag léegi ñu wàcc si terrain bi reyante bu ñu reyantee bu demee ba jeex dara desatul pour liggéey ñu àndaat liggéey man daal fa woo ñëpp nag di tallal ñëpp loxol ñëpp di léegi nag mairie bi moom yàgg na te moo fi tànk pare na bés bu nekk ba la fekk ma fi léegi daal liggéey bi jot na et puis jot na